bur radaahi lii mooy buntub nampaale nampaale day araamal araamal gu yaatu ci wàllug sëy ni ko askan di defe moo tax ñu koy beral bunt diirub yaari at yi nga xam ne moom la xale bi di nàmp ak sax yaari weer yi ca topp jigéen di ko fi nàmpal te du yaayam rek nàmpal googu mën naa andi ak araamal na ko askan daan defee ñi nga xamee ne kenn ku ne yaayam araam na ko mënta sëy ak moom ba tey jigéen di ko nàmpal day soppi ko yaayam araam ko ni ko yaayam araame ni nga xamee ne kenn mënta takk doom bu jigéenam dëgg-dëgg ba tey koo xam ne soxnaam da koo nàmpal dal ne soppiku doom bu jigéenam moom góor gi ba du ko mën a takkatee ba tey sa mbokkum jigéen ni mu lay araame jigéen joo bokkal ku leen nàmpalit day mel ne sa mbokkum jigéen ci askan dal lay araama takk noonu rek lay wéyee nga xam ne kon lépp lu jege askan di araamal rek jege nàmpaale dana ko araamal ba mu des nag ay benn benn masala yoo xam ne moom lay bëgg a wax am na benn benn masala yoo xam ne bu dee ci wàllug nàmpaale du aaye sëy am seen diggante te bu doon ci wàllu askan moom day araam bu wér a wér dafa jëkke bu jigéen nàmpaloon sa mbokk mu jigéen wala sa mbokk mu góor kon xam nga nàmpal ga mu ko nàmpal dal ne tax mu soppiku yaayam waaye du tee nga mën a takk jigéen joojee ndax yaay la ci sa mbokk mu jigéen mbaa sa mbokk mu góor waaye nàmpal gum leen nàmpal rek a tax mu doon seen yaay su fekkoon ne kooka day yaaye sa mbokk mu jigéen dëgg-dëgg wala mu yaaye sa mbokk mu góor dëgg-dëgg kon benn rek muy sa yaay wala muy soxna soo xam ne sa bàyyi ko yoroon ba am ca sa mbokk moomee te nag kenn mënta takk yaayam kenn mënta takk ku baayam yoroon daa wax ne bu fekkoon ne jigéen dafa nàmpal sa bàjjen mbaa mu nàmpal sa baay bu ndaw kon daal ne soppiku seen yaay ndax nàmpal ga waaye yow na du tee nga mën a takk jigéen joojee ndax yaay la ci sa bàjjen wala yaay la ci sa baay bu ndaw ndax nàmpal ga rek ne bu doon seen yaay dëgg-dëgg moom faaw mu araam la araamuk dappetu ndax yaayi sa bàjjen wala yaayi sa baay bu ndaw moom benn nga xam ne mooy sa maam mu jigéen ma jur sa baay wala muy koo xam ne sa maam ju góor jur sa baay mas na koo yor loolu rek mooy waral doomam di sa bàjjen wala doomam di sa baay bu ndaw koo xam ne dafa nàmpal sa nijaay wala mu nàmpal sa yaay ju ndaw dal nay doon kon yaay sa nijaay doon yaay sa ndey ju ndaw ci kaw rek nàmpal kooka nag du tee nga mën koo takk waaye bu fekkoon ne kooka mooy yaay sa nijaay dëgg-dëgg wala muy yaay sa ndey ju ndaw dëgg-dëgg kon te lay araam faw faw ndax yaay sa nijaay wala yaay sa ndey ju ndaw moom benn nga xam ne mooy sa maam bu jigéen mi jur sa yaay wala muy koo xam ne sa maam ju góor ji jur sa yaay moo ko yoroon loolu rek mooy waral mu doon yaayu dëgg-dëgg ci sa nijaay wala sa ndey ju ndaw maam ju jigéeni sa doom ju góor su fekkee la ko tax doon maamam mooy rek ak nàmpaale mën nga koo takk te bu fekkoon ne day maam mu jigéen ni doom bu góor ci askan moom doo ko mën a takk ndax kon day doon yaayi sa soxna te yaayi sa soxna araam na la faaw kon boo nee sama doom ji Muhammad Jóob la tudd yaayam Bintu Jóob la tudd léegi nag su fekkoon ne Mbeen Njaay dafa bàyyi koo fële ñëw nàmpal sa doom ju góor ji kon Mbeen Njaay moomu nàmpal gim nàmpal sa doom ju góor ji tax na muy yaayam ka juru Mbeen Njaay nag soppi ko na kon maam mu jigéeni sa doom ju góor ji te du tee mën nga koo takk ndax doon na maam jigéen ci sa doom ju góor waaye nàmpaali rek moo ko waral du ci askan dëgg-dëgg bi ci topp mooy uxtul walad maanaam jigéen joo xam ne boo ko dee seet mbokk la ci sa doom ju góor mbaa sa doom ju jigéen waaye nag ak nàmpaali rek moo tax mu doon mbokk ci sa doom mel na jigéen joo xam ne jaambur la ci yow ñëw nàmpal sa doom ju góor wala sa doom bu jigéen kon xam nga soppiku na yaayam te kum jur rek mu daal di doon mbokk ci sa doom ji maanaam ñu bokk leen nàmpal mi mbokki nàmpaale kon la ñu doon mu ne nag kookee nga xam ne ak nàmpaali tax na muy mbokk ci sa doom mën nga koo takk te bu fekkoon ne day mbokk dëgg-dëgg ci sa doom ci askan kon doo ko mën a takk da koy waral mooy benn muy sa doom bu jigéen wala muy sa doomi jiitle bi ci topp nag mooy ummu wala dil ibni su fekkoon ne jigéen dafa nàmpal sab-sab boo xam ne sa doom ju góor a ko jur kon xam nga nàmpal ga tax na mu daal doon yaay ci sa sët boobee kooka nag du tee nga mën koo takk ndax nàmpal dong moo tax muy yaay ci sëb sët waaye bu doonoon yaay sëb sët dëgg-dëgg kon day doon soxna sa doom ju góor te sa doom ju góor soxnaam araam na la faaw faaw nee nañu masala yi nga xam ne moom la leeral nii moom mboole mi yenti ngir yëpp daje nañ ci góor bu jotee jigéen jote googee jigéen ji da cee amee am soow jigéen joojee nag ku mu nàmpal te juru ko it dañuy jàpp ne ndegam nàmpal na ko rek yaayam la jëkkëram joteeg moom ba am soow it bàyyi la ci kooku mu nàmpal kon jàppal ne góor goo xam ne soxnaam nàmpal na beneen xale rek moom góor googee bàyyi la ca xale boobee jigéen ja di yaay xale boobee foofu nag kon am na sew sew boo xam ne mat a jàpp la te takk ko bañ koo fàtte mooy jigéen bu tàggoog jëkkëram te fekk mu toll ci am doom ak nàmpal rek su séyiwaatee feneen yóbbaale soow moomee ba soow may jeex ku ko mën di takk mën naa doon kii takk ko tàggoog moom keneen takk ko tàggoog moom keneen takkaat ko muy wéy li fekk soow moom jële woon ci jëkkër ji jëkk ja di jeex rek jëkkër ji mu amaat bu ci amee doom it nam doone doom ci jëkkër ji yees ja noonu lay doone ci jëkkër ya ko jiitu woon ci misaal yow ci sa bopp doo xàmmee jigéen joo xam ne yaa ko yoroon ngeen tàggoo te ba muy dem mi ngi toll woon ci di am doom ak nàmpal rek nga takk ne ba mu jógee ci yow séyi woon na ci góor a njaay jóge fa séyi ca góor a jóg jàppal ne bu amee doom ci góor a njaay mbaa góor a jóobit doom yooyee dañuy jàpp ne say doom lañ yow itam ñoom ñu ko njëkkoon a yor ba mu tàggu yow ndax ndegam yóbbaale soow mu bàyyi ko ci yow rek ba soow may jeex fu mu amaat doom it ngay bàyyi ca doom joojee dafa dem sax ba àgg ci bu fekkoon ne jigéen ay góori góor dañoo moy ak moom yàlla dañuy jàpp ne ñooñee moy ak moom yàlla kenn ku ci ne moom jigéen ji amee na ci moom am soow gannaaw ba nag bu amee jëkkër wala sax ay jëkkër jëkkër doom jum am rek day mel ne ña njëkkoona mooy ak moom yàlla ñoom ñëpp bàyyi lañ ci doom yooyu mu amaat bu ñu doon sax bàyyi ci yoon bay doonante waaye bu dee ci wàllu nàmpaale gi moom ñoom ñëpp ay bàyyi lañu ci doom yooyu mu amaat nga xam ne nga xam ne góor ña moyoon ak jigéen ji def ñaawteef woowee lu yàgg-yàgg duñ mën a takkati ku jigéen ja jur ba tey ñoom góor ñi mooy ak jigéen ji yàlla seeni doom kenn du ca mën a dem di takk ku jigéen joojee jur mu yooyu rek li ci xaw a doy waar nag téere yi dañu waxul daanaka soow moomu kañ lay jeex ña ca xaw a tane daal mooy ñu wax ne bu xasee am doom benn yoon rek soow ma jeex na nga xam ne kon gannaaw ba bu amaatee jeneen doom ju bokkutoo ju jëkk ji rek nàmpaale ga amatul lu muy araamal ñi xaw a tane daal ci jàppandal loolu lañu wax waaye ñenn ñi moom nangu ñoo wax sax kañ la soow moomuy jeex ngir nga misaal loolu misaal mu gën a leer ci yow mooy da ngay jàpp rek ne boo yoroon jigéen ju tudd mati jóob ngeen tàggoo te fekk na mi ngi tollu woon rek ci di am doom ak nàmpal bu demoon feneen séyi fa am fay doom jóge foofa jàllaat feneen am fa ay doom dañuy jàpp ne ndegam soow mu jële woon ci yow jeexutoon rek doom yooyee mu am yépp ci seen yooyu bàyyi nga ca ñooña la ñuy bañ nag li ñuy bañ nag mooy kenn ci say doom yi nga am ak yeneen soxna dem ne day takk ñooñee nga xam ne ñoom la sa soxna sa am foofee gannaaw ba mu tàggoog yow ndax dañuy jàpp ne ni nga doone bàyyi ci ñii rek noonu nga doone bàyyi ca ñooñee ba tey it kenn ci ña jigéen ji am foofee wala ca sëy yooyee du mën a ñëw ne day takk sa doom yi nga am ak yeneen soxna yu bokkut ak seen yaay de ku ne xam na ne moom ñi nga am ak jigéen ja laata ngeen di tàggoo ak ñoom amaat feneen ñooñu moom ñoo bokk jenn yaay ji xam nañ ne duñu mën a sëy waaye dañuy bañ nga defee ne rek jigéen ji nga yoroon ngeen tàggoo bu demee sëywaat feneen am fa ay doom sa doom yi nga xam ne jigéen joojee juru leen mën nañoo dem mën nañoo dem nag takk ku jigéen joojee jur ca foofee mu demaatoon wala ñu jàpp ne ñamu amaat foofee kenn mën na caa ñëw takk kenn ci sa doom yi nga xam ne moom jigéen joojee juru leen beneen soxna mbaa yeneen soxna nga ko amee kon daal dañuy wax ne takk-takk bi gën a yomba takk mooy nga ne ku ñu ne sa baay mas na koo yor rek gannaaw ba mu tàggoog sa baay nag mu dem feneen am fa ay doom it bu sa xel nekk ci dem bëgg a takk kenn ci doom ñam amaat ci foofee mu demoon gannaaw bi mu tàggoog sa baay loolu daal moo gën a gaaw daa bëgg a wax bu ñu sukkandikoo ne ndàmpaale am na ba war naa araamal diggante diw ak diw ba ci jëkk ba waxu ko mooy góor gaak jigéen ja waxal seen bopp ne mun de wóor nanu ne bokkoon nanu nàmp ñaar ñi nga xam ne ñooy sëy moo xam jot nañoo wéet moo xam jotuñoo wéet bu ñu waxalee seen bopp ne mun de bokkoon nanu kunu nàmpal dañu daal sukkandikoo ca loola daal di tas sëy ba ndax ndegam ñoom ñaar bokk nañ ko wax dañu dind rek sëy ba bi ci des nag moom la tàmbalee wax mooy ay seere seere ne ñaar ñii nàmpoon nañu buñ ci njëkk wax nag mooy ñaari jigéen ñoo wax ne déeg diw day nàmpoon nañu kee mën a bëgg kee waaye siiwar tam seen diggante ndegam may amagut te ñaari jigéen wax na loolu te da caa boole siiw siiw ga mën naa amee ci ka doon nàmpal ñaar ñooñu wax ne man ñi dee maa leen di nàmpal ba loola siiwee ci làmmiñam mën naa itam rek mbooloo mi ci des yàgg koo dégg rek ñu ne dégg diw bokk nañu nàmp ndegam ñaari jigéen wax na ko tam boole ci siiw googu rek te it dañuy bëggante waaye fusaguñ sëy ba kon deesu ko sañ a fas nañ bàyyi noona bañ koo fas ba tey bu fekkoon ne genn góor ak genn jigéen ñoo seere seere su mel noonu wax ne ñaar ñii day nàmpoon nañu ñu boole ca siiw dañuy jàpp ci seen wax jooju ba ndegam mayul woon rek bu kenn maye loolu nag mooy bi nga xamee ne seere yooyu am nañu boole ci siiw woogee te fekk maye nañu sëy ba bu ñu xasee maye ba noppi nag ñaari jigéen ña door a seere noonee wala genn góor ak genn jigéen door a seere noonee mu ànd ak siiw googee itam du tax nag ñu war a tas sëy ba ndegam gannaaw buñ mayee ba noppi rek lañ door a wax loola kon bu war ñu tas sëy ba dañuy sopp rek ñu dindi ko ndax ndax ndegam xas na siiw te ñaari jigéen seere na ko mbaa góor a jigéen seere na ko li gën daal mooy dindi ga waaye dindi ga nag du war su fekkee ne nag ñaari góor ñu maandu ñoo seere ne ñaar ñi day bokkoon nañu nàmp wala genn góor gu maandu ak ñaari jigéen moo ak ñaari góor gu maandu bu ñu seeree ne ñaari ñu nampoon nañ rek bu fekkee maye gu ñu woon kon du ñu maye bu fekkee maye woon nañ itam faaw ñu tas sëy ba moo xam jot nañoo jote moo xam jotuñoo jote buñ dee bëgg a may xale bu góor soxna wala ñuy bëgg a may gone gu jigéen jëkkër yaari waajuram ne kii ñu koy bëgg a may day mooy kii ñu bëgg a def si seen diggante day nàmpoon nañu kon nañu daal di nangu wax yi yaari waajur yooyee ba bu ñu def sëy ba dañ koy daal di bàyyi buñ bàyyi woon nag ba ñu mayee ba àggal ñu door di ko wax nag dañuy jàpp ne sëy bi dalee na neexut ñu rëccu rek bëgg caa génn kon wax jëm sax ñu dindi sëy ba waaye ndegam mayagul moom bu ñu nee ñoom ñaar ñu nampoon nañu rek du ñu maye wax yi génn jigéen dong nag du tax ñu saxal nàmpaale la ba ne bu ñu mayee sëy bi loolu di sax jigéen ji day yaay kenn kayit ak lu mu siiw siiw du tee ba leen neexee ñu jàll def may ga waaye nag dañuy joxe foofu takk-takk ne ñu wax nàmpaale ga bu fekkee yoon nanguwul seeni wax it duñ ko xësee wax rek bu ñu sañoon ñu topp seeni wax buñ mayee gutoon bañ a maye suñ mayoon ba noppi itam dindi ko kooku moom takk-takk la fu ñu fi tudde nàmpaale gi te buñ ko seetee ci yoon yoon du ko saxalit la gën rek mooy ñu far bàyyi buñ defatoon bañ a def buñ defoon tam dindi maanaam jigéen ji doon yéefar du tee bu nàmpalee gone it nàmpal googu daal di araamal la nàmpaali daan araamal jigéen ji nekk yéefar bu nàmpaloon gone dañuy jàpp ne gone ka doomam la jëkkëram it bàyyi la ca gone googee mu nàmpal nga xam ne lu nga xam lu yàgg-yàgg xale ba mu nàmpal di mën a takk seen doom ñoom ñaar ñooñu la muy yéefar bi ko nàmpal ak jëkkëram xale ba mu nàmpal di mën a takk seen doom ndax doom la ci ñoom ci gàttal rek lu nàmpal daan araamal daal bu yéefar bu jigéen nàmpalee it araamal googu daal di am rek amul genn teqale